asalaamaaleykum Lamine Kane fans club ñun waa Banjul lañ seen wax ji bari na ñuy wax Banjul xamuñ ci Banjul dara dara lañ xamuñ ci Banjul ñuy wax ni kucu kaca kaca di kaca kaca kaca xamuñ ci Banjul dara ñu ñoo waa Banjul ñoo campagne Rohilo ba mu taxaw ba mu toog meeyoo since 2018 ñu Rohilo la li xew Banjul xam nañ ko ku xamul yi fi Banjul nga noppi ne mut ñu ñoo war a wax waaye ñi xamul Banjul nañ noppi am na ñoo xam ne ñu ngi Europe xamuñ ni Banjul li demee yëfi Banjul moom dañ ko daal ñun mi nekk Banjul ñu ñoo xam suñ maati ngeeganaay ni mu xam yéen mi kaca koca du Banjul Banjul Banjul Banjul ñi xamul ñooy wax waaye nga ñun waa Banjul ñun dofuñ ñun jine mbéjuj ñu lu ñu ñoo wax daf ñu ñor Adama Barrow lu moo sesetal Banjul bi Rohilo Malick du lu ñoo Banjul BCC laa mun a wax ci council bi rohi maliklo fekku fa dara rohi maliklo generator la fa fekkoon mu génne on xaalisam dugal ko ren ñaata account lañ fa ubbi woon ñaata account a fa nekkoon rohi maliklo manage ba tëj account yu ba mu desee ñaari account hey bu leen xamul si baañu dara ngee noppi maandu leen ci Banjul maandu leen ci Banjul bi rohi di ñoo Banjul ñu xam nañ fa la ñu fekka since day one ñu ngi Banjul ñun kenn mënuñoo wax dara ci Banjul dégg ngeen ku xamul ci Banjul dara nga noppi bu leen fi sosa Rohey Malick Lowe Rohey Malick Lowe bi moo ñëw ci council bi amul xaanin over generator moo fa nekkoon xam nga ñaata lañ amee woon nawek ndox sa amutoon bi si si amul benn xamul leen ci baajul dara mandu leen ni da ngaa loo xamul nga mandu moo gën ngay wax loo xam ne óorut la booba léegi maa ngi déglu seen waxtaan nag moo tax ma def dugg a tontu ku xamul ci baañu dara nga noppi ku xamul si history baañu dara nga noppi ne pat ñun ngeen bàyyi ñun ñu ne xam ñu ñu ñu wax ko ñun kenn def ñu gën a xam baañu rohi malik lo rohi malik lo rohi malik lu mayo yi fa jaare luñ fa def defuñ fa dara tous waaw baañu projet bi ñoo xam ne kenn xamul ni mu demee. li ci kanam rawuti but nañ la ñu dem rek ba 2023 da nga xam ne lépp a dégg la su fekkee ne nga naan nax Adama Barrow lekk xaalis nga ne nax ko lekk xaalis sax moo gën waaye bu leen kenn bu ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ñun waaw duñ ko nangu wasalaam.